lañu xëy fësal Aïcha bokk na ci nag pàcc bu yees bi nga xam ne rek ñeel na lii di train express régional negee ni nag ci njeextalayu bés bi la ko njiitu réew Macky Sall doon dalloo foofee nga xamante ni moom mooy ay AIBD aérogare bu bees bi li nag jàpp leen rek ne lu ni mel bokk na ci nag loo xamante ne ni dana mën a fexe rek ba lëkkale loola di aéroport bu Diass ak gare bu mag bi nga xamante ni moom mooy bësuka Dakar mbir la nag moo xamante ne nii réewu ko Zambie ak Ouganda dañu si rek euh, mën a daal di euh, sukkandiku ngir nag daal di ko def seen modèle bopp loolee bokk na ci euh, loolu soleil yéen kaay xëy rek di xamleel nu mel nag doon pàcc bu yees bi nga xamante ne ni moom moo tukkee ci bilek inauguration les échos yéen kaay nag nañu inauguration bi li tam bu nañ su nañu ko xayma rek ni njiitu réew Macky Sall nag dafa tàmbali rek campagnal candidat bi nga xamante ne ni moom la ñu fas yéene samp la mu fa xam ne daal moom mooy bu ñu leen desee rek di wóolu gouvernement moom nag dana wóyal lépp loo xamante rek moom moo ñeel li lekk rawat na rek euh, terre bi nga xam ne daal bëgg nañ ko yëggali di ko dalee Thiès jàpp euh, mbuur bokk na ci nag kàddu yi nga xam ne euh, moom la yëkki ci tukk yëglekaay bi critique yéenekaay moom ci coowal candidature yi lay jàppale nag ni bokk na ci daal la muy wax yëf yu leeragul benn yoon ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax nag buñ koy xayma ku nekk ngi tibb rek di tudd ay tur ci li nga xamante ne ni moom moo jëm ci kay fuy wuutu njiitu réew Macky Sall waaye nag léegi amul lenn lu cay leer mu mel ni rek jamono ji yëf yi dafa niroo rek ab jeu de massacre bu ñu sukkandikoo ci suñuy nattaangoo Bougane Gueye Dany moom jotu géelekaay bi la muy wax rek moom mooy nag njiitu Macky Sall lay woo ngir nag mu daal di woote wutali rek ab élection boo xamante ni daal dana tëddee njaaxanaay maanaam lépp dana ci leer ba kenn du ci gis ab lënc lënc bokk na ci rek njiital gëm sa bopp la muy sàkku ci njiitu réew mi Macky Sall Sud Quotidien moom jàpp ne njiitu réew Macky Sall du bokk loole nag sori kam Ba moom xëy na ci rek yëkki ci ay kàddoom ñàkkum bokk bi le nag dafay rek daal di fësal jamono ji rek ni ah, moom daanaka ah, sàmmonte nag kàddu yi nga xam ne daal jotoon na ko yëkkati mu jàpp daal na lu ni mel ah, lu ñu waroon a teel def la sax buñ koy xayma ndaxte moom jàppoon na daal na lu ni ci lu doon gën a leeral rek mbiru ka Benno Bokk Yaakaar lay doon sorika ba nag jamono ji ma ngay leerali mbiram mu ñu sukkandikoo ci li de Sud Quotidien yéenikaay enquête la ñuy ubbi jamono ji waxtaanee diggante France ak réew ko Sénégal mu mel ni nag ñu koy xayma jamono ci diggante Emmanuel Macron ak njiitu réew Macky Sall daal dafa mel ni sagar daf cay xeeñ booba ak léegi la yéen kaay di waxtaanee daal bokk na ci daal euh, traitement médiatique bi nga xamante ne ni euh, këri taskatu xibaar yu France ñu ngi koy def booba ak léegi daal ñu teg loxo kii di Birame Souleye Diop waaye tamit euh, lii ci événement yi fi xewoon rek ci ndorteelu ko weeru juin bi lee bokk ci nag jamono ji li nga xam ne moom mooy yokk xarma karaw bu ñu sukkandikoo rek ci enquête yéen kaay waxtaanee ba léegi coowal njiitu réew Macky le peuple yéeni kaay nekk nañu ca sommet bu CEDEAO mu amoon nag ca biir Guinée Bissau ñu koy xayma moom njiitu réew Macky Sall daal wàllu bonne gouvernance dialogue national ak yeneen yu mel tax na nag fi ñu toll ni ay naataangoom daal di koy ndokkeel bu baax a baax rek ci dogal yi nga xam ne ni jot na ko jël ci coow lu ni mel ba léegi euh, ci mbiru ko élection la ñuy waxtaanee Vox Populi yéenekaay nag daal di dellu si li ñu xamal ne Aïda Mbodj diggee bor la la mu defoon nag daanaka euh, moom mooy xam ne daal ni dana ci bokk jamono ji nag samp na ndëndam wutali rek jàllale euh, di élection yu atum 2024 naka noonu tam ci docteur Rose Wardini mi nga xamante ne ni moom daanaka gis na sax boppam ni daal moom moo war a mën a jiite li nga xam ne ni moom mooy bilek exécutif buñ koy xayma nag soxna yi ñoom rek ñoom ñoo des jamono ji di dawali fauteuil présidentiel présidentielle bu euh, Macky Sall ku ñu sukkandikoo ci Vox Populi euh, yéen kaay waxtaane euh, direct news ak CEDEAO mi nga xamante ne daal daanaka fësal na interconnexion ci réseau électrique bi nga xam ne daal moo ngi ko wasaare ci biir fukk ak ñaar ci ay réew bu ñu koy xayma Sénégal ci loo boobee la bokk daal bokk na ci ni nga xamante ne ni moom la xëy ne fàng ci xëtam bu njëkk tàggat yaram jàppale nag ni Maroc kàddu na rek loolee di Coupe d'Afrique des Nations ndaw yamagul ñaar dalal digganteem ak Égypte naka la woon final ba Maroc mujjee leen a daal ñaari ball ci benn bu ko weesoo la tribune sport des ci coowal Sadio Mané nag mu mel ni moom moomee daal bëgguñatuñ koo gis jamono ji ñu toll ni foofe ca biir Bayern Munich ay sax li mënuñu seen i kaay yi fay fasal ci bésub tey jii nii